ay clé yoo xam si ne ñëmal nañu koo waxtaane mais ci en tout cas ci engouement ci diggante ñaari mbër yoo xam si ne ñoo tolloo génération tolloo doole ba pare kenn ku la nekk doomu mbër Malick lan nga may wax ci euh, engouement bi nga xamante ne moom la combat bi am Malick. Eh, lii taxaw na ba pare. dëgg la bàyyi leen xel ni le 19 di Diakhaté production mooy tëgg caatu Yoff. dëgg la ak Tyson 2 fii drapeau Cheikh Kanté Nice. samedi samedi samedi la ñuy dem yóbbul ko drapeau samedi Fatick Fatick lañ jëm. remise de drapeau. forte délégation. Reug <laughs> Reug ma ngay waaye combat bu doy waar a ngi nii combat bu naqaree pronostiqué laa lay wax. koo ni faral. Sa Thiès xa est xeex bi gënu ko arrangé Reug Reug bëre bi. Sa Thiès daa war a xeex. waaw. Sa Thiès la mu daan def waru koo bàyyi. dëgg la. mooy rapidité ak vivacité. dëgg la. enchaînement loolu la war a def. Reug Reug jàpp lay lijjanti. moo tax boo gisee Sa dafa wàññi poids pour gën moom yaramam pour gën am salañ salañ Reug Reug xam na ni Sa ci kawam la jëm. mu yokk poids pour bu ñu nee ruukum daje bu bëggee yëkkati du ko mën. mais combat bi bu gaawee avantage su kan la ci ñoom ñaar. ñaari xale ñoom ñaar ñëpp la. ñoom ñaar ñëpp. ñaari bërekat lañu. mais Bacar lu may wax ci Papa Kane ak Double Less. nga yaakaar loolu tey li wu fi nekkoon bi jaay rasul sallallahu alayhi wasallam Sa Thiès a ngi sotteekoo Sa Thiès mais Malick lii tamit est-ce que duñ ko ci est-ce que duñ ko ci avertissement ndax te heure bi war naa jot dix minutes lañ la may pour préparation mystique bu dix minutes yi jàllee minute bu ci topp dañ lay teg dañ lay dagg dix mille à partir de à partir de 30 minutes minute bu jot ñu dagg la 30 pare bañ nañ la at 6 mois wala 1 pare na pare na. mi ngi bàqule Reug ngay fecc. Reug ngay fecc. na confiance. ah ay génn. dëgg a ngi 14 victoires. deux combats sans verdict. Reug Reug moo daan Alioune premier mars 2012. moo daan avril 2012. moo daan Boy Diouf Obama le 7 février 2014. moo daan Sangu Ndiane le 22 juin le 2 mai 2015 moo daan Fall Yaraax le 6 juin 2015 moo daan Balla Gaye Junior le janvier 2016 moo de Mer le juillet 2016 Bébé Saloum le février 2017 moo le mai 2017 Elton le mars moo daan Gris 2 le 15 juin 2019 moo daan Gouye Gui fin février 2019 ñaari combat la am Clinton 25 décembre 2012 ak Pape Yekini 10 avril 2015. jërëjëf Malick ci production bu am solo boobu nga xamante ni moom a ñu defal ci ki nga xamante ni boo rëg rek. waaye Sathiès nag bu ci waaw 14 victoires. moo daan Boy Diouf. Ah. 22 février 2009 daan Bombardier Junior 20 juin 2009 daan Wuli Wuli Waat 26 juillet 2009 daan Boy Ngaay 9 janvier 2010 daan Nekorel 11 avril 2010 daan Zarko 25 avril 2011 daan Moussa Dioum 8 juillet 2012 daan Jordan 27 avril 2014 daan Lac Rose 31 mai 2015 daan Siteu Nees 9 avril 2017 daan juin 2021 ñaari défaite la am premier mai 2013 Boy Niang numéro mars 2018 mooy Sa Thiès Malick Thiandoum ñu ngi bu baax baax ci production bu am solo boobu nga xamante ni defal nga ko ci ñaari mbër yi mu nekk bilan boo xam si ne bilan bu riis la gagné bu riis ci Sa Thiès noonu la ko defee tamit ci ki nga xamante ni mooy Reug Reug ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne am nga carrière bu riis riis ndeysaan carrière boobu nag ginnaaw bi ñu ko amee ba pare tey la ñu fas yéene jàkkaarloo ñoom ñaar Malick ci diggante ki nga xamante ni mooy Sa Thiès ak Reug Reug tey nag yaakaar naa bis ba am solo waaye Malick ñu delloon jëkkal jigéen ñi kenn ku ne muy waaj bi bu rëy le sept di delloo njëkkal jigéen ñi Sénégal yëpp waaye kan moo koy présider kooku nag mooy son excellence président Macky Sall di sa Balla Gaye mi ngi noonu jigéen ñi ñoo xayre jigéen ñi ñoo aaye walaay walaay mois de mars seen mar seen mois jigéen mooy suñu yaay yi la jigéen mooy suñu soxna dëgg la jigéen mooy suñu jigéen jigéen moom la yàlla cëral jox ko saar alxuraan dëgg la jigéen tëral bu ko yàlla tëral moo tax mu ne booy jox joxal yaay. joxal yaay joxal yaay soo ko indi baay. Malick Malick yal nañu yàlla dolli jàmm ji jigéen mooy àjjanay doom mooy wërsëgu doom. jigéen mooy àjjanay doom. mooy wërug doom. waaye Babacar Thiam bu sëñ Mourtala ñoo nuyu di nuyu doomam Mourtala Thiam. jaam spécial bi sukay na di nuyu nag maam jaara kase Fatou Niass. Malick Malick Balla Gaye am na Balla maa ngi leen di nuyu mi ngi xëpp saafara Sa di nuyu seen waajur yëpp ak seen mbokk yëpp moom la suñu papa Double amoon waaye olof dina wax ne ah. mag mooy bàyyi père Double Less nekkatu fi Balla fi ne Balla baayam biteel bu mujj ba Double Less doon jël moom la Balla jël tey di ko soog. mais dafa lu ma ci seetlu lii nii kañ ko gëj a gis Balla Gaye defal ko rakk parce que bokk ñu woon écurie te CNG dañ ko doon tere tey jege bii bu koy jege am na lu muy def ci moom ndax kat Sa bii Malick wax nga ko ci direct une heure Sa Thiès bii ma gis nii am na lu mu bëgg ci làmb ndax Balla daanaka tekki na caacam daanaka li dese Balla Gaye ci làmb kon Sa Thiès dafa mën a jël flambeau bi nan la ko war a mën mooy mu jàll ci étape bi dina yomb wala du yomb on donne notre langue au chat. loolu loolu Lamine yàlla moo xam ndam yàllaa ko yore yàllaa joxe ndam ñoom ñëpp ci yaakaar la ñu dund tey. wax bu yegg yàllaa ko moom. li xew suba yàllaa ko moom xam. li xew ci kanam yàllaa ko xam. ku ci ne. man de dama waaru yaakaar nga ni nga toog. dama gis ñoom ñaar ñëpp ñu jekki-jekki fendi wow. ma gis ñoom ñaar ñëpp ñu ñaxaat ba doy xepp. ma xam ni Serigne jàppul kenn. te ñoo ngi ñoo ngi super état. bu ñu bëree mu neex. bu ñu bëree bu ñu bëree. mani Lamine. Malick am na luy xew fii en direct mooy pël yi nga xamante ne da nga leen di fay jooni ñu fasal la bi léegi fi dama ni suñu bëree mu neex ma ni bu ñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex Lamine xanaa xamoo ne am na am na loo xam ne boo ko sangoo takk du la lan alaaji lënd lënd lënd lënd dafa loo koy jënde boo ko sangoo takk du la jàpp. mais tuuti la tuuti la tuuti la ci d'accord dako faale maawo joor kumba samba yaay jaloor le roi des satado iliman bay dogo nuyu naa la siyaara nañ leen rëg ngi noonu Sanchez ngi noonu maa di Cando ngi noonu Alaaji Cerno Njaay a ngi noonu askan waa ngi noonu les derniers moments de la préparation mystique étendé bi Liceo. Dogo Fale Mawa Dior Masamba Yaay Jaloor Elimane Mbaye Dogo. ay waay le roi des châteaux d'eau ngi noonu sama waa kër yëpp maa ngi leen di mooy docteur ci biir kër yi samay oh, le cratère. sama kër ndey sama kër de l'arène nationale. ak étendé bi Liceo. maa ngi leen di nuyu les derniers instants. doom yëpp. ak seen njaboot. Malick léegi mu doon wàllu teen alaaji Cerno léegi ñuy wàllu ci bunt bi la ñuy yem. léegi ñu yem ci bunt lay lay la la Reug Reug la. Sa Thiès la Sa Thiès la. Sa nekk ci état la ci na dama dama koy braqué. ñaari mbër nekk ci état la. Oh, xaw ma ci c' est ñaari mbër yu nekk ci dina métti ay temps ay Serigne Fallou Mara nuyu naa la. ku nekk loo yamale ko sa bopp. bi nag xaw naa xajam. Omar Chouba nee na lamb ji neex na. géew bi xajam na. li ci bokkul waaw nañu génn. nañu génn. njaay ci biir nañu génn. njaay ci biir pare na. ñu koy fay Alaaji Cerno Sa Thiès pare na Reug Reug pare na Sa Thiès pare na Makan pare na Makan a ngay jat de mais Toubacouta euh, Lamine waaw Toubacouta le sërëm gaañu ah Toubacouta ah bon moo moo ñoo ba Sarr ñoo bokk ndeeg baay ah yal na ko yàlla yërëm ko koy jaale yàlla may ko ko jaale yaayam ju ak xalifa Jóob yaayam ju baax di jaay mon frère Khadim Samb Grand Dakar nuyu naa la mon frère le sang on a tout partagé man ak yow. Reug Reug pare na Sa Thiès pare na waa kër Reug Reug ñu ci digg géew bi Maka Ndeng ngi ci digg géew bi waaye Sa Thiès ngi ci digg géew bi. Balla Gaye it mu ngi géew bi. ah am na lu Reug Reug di wax ak koy wax naan ko su ma paree Sa Thiès ci yow laa jëm. waaye yóbbu yóbbu tàggal la ubul lamb. Sa Thiès a ngi wax ak moom yi am lu ñu sànnante booy bi la kii li mu def du yoon. da ko policier li mu def du yoon. lu muy def nii. lii lan la wax na dëgg lu muy def nii. wax dëgg da ngeen taxaw. wax na dëgg Malick eh Lamine waxul dëgg. waru ko sànne dara kii waru ko sànne dara. waaw kii dañ ko yóbbu. non daf ko ne Sanchez waxoon na ni man dootuma nangu kenn di ma këpp dara. Reug Reug waxoon na ni dootuma nangu kenn ku ma këpp dara waaye accompagnateur yi ñooy yàq yóbbu ko. booy bi ànd ak Reug Reug eh, Lamine day wax dëgg. ki ànd ak moo. ñu yóbbu ko ñu ngi patam patamee Balla Gaye lamb ju bu ko yàq. ñu ngi patam patamee Balla Gaye yow joxuñu mbër kenn xamu looy sànnee. Comment Balla Gaye nee na leen calmez-vous. c'est un grand sportif. affaire bi ci biir géew bi la. ah oui mais Malick tension lamb ji moo toll foofu il faut ñu calmer les nerfs. xam nga lu tax may wax Sa deful dëgg. loolu waxuma ko. comment doyatul mu nga génn di xëpp suuf.

bu nu woon bëreewu ma lu ñuy wax Balla dañuy waxtaan léegi Sa Thiès suñu woon ma lu ñuy wax. mais El dañuy waxtaan. waaw d'accord bu dee woon bëreewu. non kii yoonam nekku ci muy muy xëpp saafara. on est d'accord avec toi. alors mais ñi nañ leen réglé. mais dama ni Sa Thiès ànd ak mbër yi. seen yoon nekku ci. Ba Dieng. maa ngi xajam mais géew a xajam. Ba Dieng géewul làmb dafa war a xajam. li ma wax dafa leer. xale boobu chérif la police dañ ko a jàpp yóbbu mais Sa bu mu dem di régler ji problème bi parce que dafa war a ci làmbam ma ne waa ji di waajal mbër mi waajal bëre loolu dafa mbër mbër ak buur mbër mbër ak buur ñoo mbër bu jógee di dem ci làmb ci xare la jëm lu dox digganteem ak ndam rek day wax ni da nga ko koy yàqal. mais Sa Thiès est très serein Malick. il est boobu la soxla ci lamb. lamb kenn du ko yàq. concentration boobu la soxla ci lamb. soxlawul dem di xeex ki mu war a xeexal mooy Reug Reug. bi ma gisee Pape Mamadou Dieng dal na Malick làmmiñ bu waxul dëgg wax safaan wi. kii warul yoonam nekkul ci lamb ji. ki war a xeexal rëg-rëg ki ko war a xëpp saafara rëg-rëg la ki ko war a xëpp sunguf rëg-rëg la may ma may ma ma may ma ma may ma may ma rek may moo ko waroon def règlement bi joxu ko ko joxu ko ko yow lu ciy sa yoon alors on est d'accord kooku sotti yoonam nekku ci rëg-rëg amul sotti Sa Thiès Sa Thiès loolu gënoo ma ko xam dañ ni mbër mu nekk li nga am yamale ko sa bopp yow doo mbër kenn xamu la doo ménager signé woo contrat doo président écurie loo xëppee mbër mi war bëre ci dernière minute suguf wala laneen soo ko xëppee làmb ji yàqu looy wax. tu as raison alors. waaye mbër bi bu demee xeex ñu gaañ ko làmb ji yàqu. revenons à nos ki ko ko def moo ko xeex loo. dëgg la revenons à nos moutons la ligne pâtière. Malick Sa pare na Malick Reug pare na Malick. tey le 5 mars atum 2023 arbitre yaa ngi xool ndax rëg-rëg diw waaw wala déet arbitre yaa ngi xool ndax Sa diw na waaw wala déet walub teen ca pind yem mag ñi toog nañu farandoo toog nañu sottikatu saafara yi toog nañu ay laa la laa tànn nañ bokk yo Malick buñ la jamee nga gaañu sa doom ba looy wax Papa Lamine looy wax. dëgg laa laaj Thierno ñu ñëw ci sujet bi am na solo Malick demal. la pression monte l'adrénaline monte émotif et cardiaque abstenez-vous vous prenez du sucre Sa Thiès Reug-Reug ci biir géew bi pétard yaa ngi tàkk jeu de lumière yaa ngi tàkk fumigène yaa ngi tàkk ñoom ñaar rek ñoo ci des. ñoom ñaar rek ñoo ñoo ci des El Hadj Thierno Ndiaye. Alaaji Cerno Njaay damay wax ni 16 la plus 2 mbaa mooy 2 Malick Thiandoum ñëwal ci man ci palmarès su Reug Reug Malick ci man ci palmarès su Sa Thiès Reug Reug Sa Thiès rappelé naa ko léegi Reug Reug 14 combats wala 14 victoires 2 combats arbitre baa ngi leen di xool. arbitre baa ngi leen di xool il fait vingt heures vingt quatre minutes taal nañu bopp ya bés bu rëy la le ministre Yankhoba Diattara la ñu ko tuddee le ministre des Makan Mbengue par le biais de Gaston production moo ko tëgg Modou Lo ñëw na fi léegi Boy Niang ñëw na fi léegi Malick Thiandoum l'événement c'est aujourd'hui à l'arène nationale et l'événement c'est Reug Reug Sa Thiès drapeau Yankoba Diattara ça c'est beau arène nationale fees del ko foo sànni batt bu takk le crépitement des pétards yëfi yëfi léegi bu jeex de wallaay dëgg la bagol baax lu waay jo jaay leen club am ba noppi am na lu sa jees am na am na wis rëg rëg waa maa nit lu ñuy xaar arbitre bi mooy Reug Reug pare na Sa pare na non day contacter juge yi day contacter yi ak superviseur yi ak borom chrono waaw mu jeex beneen superviseur boobu yaa ngay tàkk boobu yaa ngay tàkk boobu yaa ngay tàkk Lamine Malick nga làmb buñ ko bëggee defaraat waaw buñ ci wax nga ko sànq ñoo ko bàyyi ngi wax ni pardon du am faut ñu waxtaan. ci waxtaan la ñu dëkk ak ñoom. ñun faruñu. mais buñ gisee lu dul yoon dañu koy wax. comme bu gisee ñu yoon wax. dëgg la dëgg ñuy xaar dañuy xaar pétard yi fay ñu mën a ciblé combat bi mais Sa Thiès pare na Reug pare na. arbitre yi ñoo ci des. Sa Thiès pare na. Reug Reug pare na.

mais Malick combat bi tey. waaw mais lu xew. combat bi kenn mus xool Sa Thiès. on attend les arbitres. ñaari mbëri ñoom ñaar ñëpp ba pare. nga ñu féliciter le ministre des sports ndax écran bi na ci stade bi te ku yokkul yaa wàññi. mais Malick merci Yankoba Diatara. mais baax a baax son excellence président Macky Sall ci liggéey bu rëy bi nga xamante ne def na ko ba kii ci Sédhiou. inauguré fa ay inauguration yu am am solo ñu koy félicité bu baax a baax. ngi laaj Sa Thiès. arbitre baa ngi li làmb nangu ak li làmb bañ bu la dooree nga daanu daanu nga kat ab bi jël la wal gi gaa ngi noppi. Reug Reug pare na Sa Thiès na Sa toj na nen laaj na Sa Thiès la na laaj na juge laaj na Reug Reug ndax pare nga laaj ba dal na dimanche 5 mars 2023 arène nationale Reug Reug Sa Thiès drapeau Yankoba Diatara arbitre bi sifflé na Balla Gaye ngi concentré wu combat bi dal la laaj Lamine combat bi dal la laaj dal la laaj distance ñoom ñaar dal waaw non dañuy jegante bul bul sonn dañuy dem. round d' observation. bul sonn lii mooy round d' observation ci làmb. Sa dañ daan sifflé mu dox waaye dafa taxaw. ndax dina ko def. Reug Reug dañ daan sifflé mu avancé. waaye dafa taxaw dañ dañ dañ ni Reug Reug yàgg yàgg dana la fekk si. di ko xaar Sa Thiès. xoolal Sa taxaw di ko xaar. Sa Thiès ci suuf si. yàgg yàgg dana la fekk. dañuy daje. dañuy daje. Sa Thiès a ngi avancé. dañuy daje. Reug Reug Sa Thiès. Sa Thiès ak Reug Reug dañuy daje. dañuy daje ye. Sa Thiès dañuy daje. sirip sirip Reug Reug jël na ko. Reug Reug jël na ko. Reug Reug jël na ko. Reug Reug jël na ko. Reug Reug jël na ko. am na lu xew am na lu xew combat bi jeex na. combat bi jeex na. combat bi jeex na. combat bi jël. arbitre nee na jël la amul. arbitre sifflé waat na. amul lu xew. jël. saa Thiès soog na door na. saa xeex. saa Thiès xeex. tey teelul xeex. saa Thiès door na. saa Thiès door na. Reug jël na tànk bi Reug Reug jël. Reug Reug daan na saa Thiès. Reug Reug daan na Thiès toog ci kawam. Reug Reug daan na Sa Thiès toog ci kawam. 45 secondes. 17 combats 17 victoires. une minute. Reug Reug daan na Sa Thiès. 46 secondes. Reug Reug daan na Sa Thiès. daan na ko jëlee ba amul benn warante. oui Sa Thiès a fantasé sur combat. ah daa jaay combat bi. ah warul woon bëree nii. Malick lu njëkk am lan la. sur la première action la ñuy xool. nañu xool. xoolal xoolal. nañu xool. nañu xool. On reviendra tout à l'heure sur la. Ah, alors alors ah, alors alors alors ah. am na quatre appuis am na quatre appuis. quatre appuis am na de quatre appuis am na de. alors alors alors. wala amul. on revient sur le ralenti attendons. nañu xool nañu xool ah ah ah ah ah. Ah. ah ah Alaaji Cerno am na lu xew de am na lu xew de on revient am na lu xew de xoolal Malick xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal. sur l'écran géant xoolal sur l'écran géant xoolal. xoolal sur l'écran géant xool leen mbokk yi ñu xool waaw ah. Malick Malick Malick xoolal fële. xoolal fii Malick xoolal fële Malick est-ce que quatre appuis que quatre appuis est-ce que quatre appuis amul Malick que quatre appuis ah. amul amul pas facile ah, c'est pas facile mais on a l'impression que Reug dafa def quatre appuis mais moment boobu Sa amul pour arbitrer on revoit sur l'écran géant am na katapi am na katapi sur l'écran géant am na katapi ñaari loxo ñaari tànk weer na katapi katapi am na katapi am na katapi am na wala amul ci image yu gis waaw katapi am na il faut des arbitres on verra de toute façon. Malick ñu xool. on revient. on revient ñun du ñu daw ñun du ñu daw du ñu ragal Malick. ça tient de ko Reug Reug sànni gauche sànni droite ci ngelaw li daal di daw jël Sa Thiès ko Sa Thiès def recul Reug ko bi mooy deuxième j'ai l'impression que Reug Reug dafa def quatre ans. waaw man j'ai l'impression j'ai cette impression. j'ai l'impression je ne peux pas être formel. Ouais. mais j'ai l'impression que sur la première action Reug Reug def na quatre on a l'impression na quatre ans. moo tax Sa Thiès bàyyi. waaw mais warul arbitrer boppam. waaw waaw warul arbitrer boppam. et puis loolu loolu loolu ba voilà on ne peut pas être acteur et juge comme arbitre. maanaam maanaam xoolal maanaam xoolal. quatre appuis am na quatre appuis am na. katapi am na mais ce qui s'est passé mooy Sathiès dafa jàpp ni daan na ba pare deuxième action bi Sathiès dafa vendanger dafa vendanger combat bi ma ni deuxième action bi li mu jàppee ni daan na ba pare deuxième action bi Sathiès dafa mel ni ku vendanger combat dafa mel ni ku yàqam te bu continuer woon sur le même rythme mën na am li mu amoon lu ëpp loolu wala lu ëpp loolu Et voilà. On se quitte sur ces images. Ah ouais. Maintenant Sathiès. Sathiès a mën na dem def recours. Sathiès a ngi bu d'accordul. il faut qu'on nous xeex bi jolli na. li jaru